Bonjour dans votre acte du jour euh, de ce lundi 13 novembre 2023 sur VIP People TV, la chaîne des grands événements, Ginao choc royal bi amoon ak euh, Nicolas Enco le 5 novembre le 12 novembre Fofotia Arena arène nationale kii di Albourakh Events euh, di Bay Alé de di Aziz Alé Nous Nous avons un combat royal combat royal nous nag mi ngi dox ci ñaari gladiateur ñaari ténor de la lutte muy nga pensionnaire ou écurie Sène ak pensionnaire u écurie Bawal di Tafatine ginnaw nak combat bobu bu mu amé fofu ci arène nationale yakarna ni gis nañ fa ben choc de géant choc bo xamante debbu démb mën nañ jàpp ni que làmb feeñaat na gis nañu ñaari ponkal yo xamante tay suma né avance wala cachet bi ñu leen jox dañ ko mérité ndaxte sëgg nañu bëre li war ci préparation def nañ ko sécurité bi assurer nañ ko sëgg nañu xeex nañu bëree nañu ci biir lool nak la yalla bi dara tawul jox ki nga xamante moy mooy pensionnaire Bawal di Tafatine ndam ci kaw ki nga xamante moy mooy sen bi nga xamante ni aussi il n'a pas démérité song na xeex na ba daan ko ci biir en tout cas li fa feñ manam moy doole ginnaw tafatin nak bi nga xamanteni premier round bi ki di ambassade moko dominer ginnaw lolou sel ko fëgg ay coups yu métti ñu dal di seug tafatin rep mais fofu lañu xamanteni xamee ni que tafaatin bi entraîneur na kaw entraîné na suuf ndaxte entraînement bi mu def ci souf manam ci tànk yi lolou moko permettre mu soulever wa bañu ñu ci deuxième round bi nak ginnaw bi nga xamanteni ambassade yóbbu na ki nga xamanteni moy tafatin fofu ci ardo ginnaw tafatin nak mo doon tabaate kanamu lutteurs yi bi yon nak am Eumeu Sène moo njëkk a tamaate kanamu kii nga xamante ni mooy Tapha Tine yóbbu ko ci ardo bi Tapha Tine dellu suwaatee nag ci deuxième round bi li Eumeu Sène amoon ci premier round bi moom la Tapha am ci deuxième round bi mais ginnaaw taayam ak njoolaayam ak largesse am looloo ko may ak doole bi mu am ci tànk mu daal di jël Eumeu Sène daal di koy sukkati daal di koy dëpp ci suuf mais li ñu mën a wax daal combat bi débb woon diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ni mooy Tapha Tine mais lenn lañ ci mën a xam daal ñoom ñaari bëri yi amul kenn ku ci démérité ñu ñëwoon ci stade bi muy amateur di supporter ñëpp kontaan nañu ndaxte gis nañ fa làmb moo fa feeñaat dafa mel ni làmb mi ngi dunduwaat ginnaaw nag bi nga xamante ni ci biir enceinte arène national la kii nga xamante ni mooy géant wu Bawol daal di daan kii nga xamante ni mooy Eumeu Sène ba noppi daal di jël dessus bi ci kaw mu doonoon benn combat boo xamante ne apparemment ñi ngi ko disputé foofu diggante ñaari lutteurs yi ginnaaw bi ñu koñantee bu baax muy surtout Eumeu Sène ba noppi daal di tombé ci piège yu ki nga xamante ni mooy Tapha li ñu mën a jàppal daal làmb nii la gis nañu ko depuis Ama Baldé moo Lo tafaatin Tine ak kii nga xamante ni mooy. Euh, Eumeu Sène ñu jëm ci beneen journée diggante Siteu ak Lac de Guiers 2 maanaam le 19 gis nañ fa daal làmba feeñaat na kii di Balla gay di doomu Double Less dellu siwaat ci biir arène bi yëngal ko wàcc bàkku daal di dëkkaat foofu ay doomu aadama kii di Sa Thiès di rakkam jël ndëddam daal di koy samp ci diggante Eumeu seen ak kii nga xamante ni mooy Tapha Tine maanaam ku ci daan soxla naa la wala ku ci daanu soxla naa la en tey kii nga xamante ni mooy euh, euh, Sa Thiès maanaam combat kii nga xamante ni mooy Tafa kii Eumeu Sène ak Sa Thiès lu mën a solo la parce que Sa Thiès war na mën a jëlal revancher kii nga xamante ni mooy magam di Balla Gaye 2 bi nga xamante ni Eumeu Sène daan na ko daanaat ko muy bête noire am comme kii nga xamante ni Balla Gaye nu mu nekkee bête noire u kii di Sa Thiès dëkk na leen ñoom ñaar li ñu mën a jàpp daal ginnaaw bi nga xamante ni lamb bi teg nañ ko en direct foofa ca TFM dafa mel ne lamb mi ngi dellusiwaat mi ngi duggaat ci xolu doomu aadama yi ndaxte lamb bi suñ ko jëlee bëgg ko tegg ci télévision yi def ko ci pay-per-view am na ñoo xamante ne amuñu jotu connexion courant bi day coupé donc ñu bëre dañuy désintéressé wu ci lamb alors que tey gis nañu état du Sénégal mesure yu mu jël en pensant par fond FONGIP ginnaaw bi président de la République yëkkatee lu wàllu 500 millions ci kanamu premier ministre ak ki nga xamante ni moo fa nekkoon di Thérèse Faye ñu jàll jàppale li nga xamante ni mooy secteuru lamb pour que ñu structuré ko ba nga xamante ne ndaw yi ñiy jël ñiy jël gaal yi dinañu mën a bàyyee jël gaal yi écrit di mën a am ay combat je crois que lu rafet lañ fa gis en tout cas mën nañ jàppale mel nga daal mi ngi wat jamono yi ginnaaw bi nga xamanteni ni ci combat bi doxoon ci diggante ki nga xamanteni moy tafatin manam di écurie Bawol daan na nga xamanteni moy mooy Eumeu écurie Tay mais Eumeu aussi perdre na mais démérité wul ndaxte bu mu ñibé kërëm fofu ca mbaaw dañ ko doon téru xamal ni que lu mu metti yow rek lañuy top ndax ndaxte gis nañu gaynde nga bëree nga woné nga jom woné nga fulla bésu daanu su ñëwee bésu daanu moy ñëw en tout cas nous disons félicitations à ki nga xamanteni moy tafatin et bon courage à Eumeu pour ce prochain combat